guddi fukkeel gi ak ñaar sëriñ bi mi ngi wax ne képp koo xam da ci julli mu da ci naafila ci naafila gii di ni ko gën a xamee muy naafila ak sëriñ Souhaïbou mu julli ci fukki rakkaa rakkaa bu ci nekk faatixa benn yoon suratul ixlaas mooy xul wallahu juróom benn yoon fukki rakkaa bu ci nekk faatixa benn yoon suratul ixlaas yi juróom benn yoon sëriñ bi wax lim am ci ngeen mun ne képp koo xam ne def na ko des na ko wutal ci àjjana juróom-ñett junni yi soxna te des na ko boole ca dëkkandoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallama euh, te mel na it ku jàng alquran jàng tawreet jàng sabuur jàng injil ci ay aw yiw ak ay tuyaaba euh, te it des na ko euh, jéggal bàkkaaram yëpp lu mu bari bëri donte dafa toll ne duusi géej duusi géej maanaam duusi yi nga xamee ne mooy góy gi ni muy demee di ñëw te des na ko bindal tuyaabay jaam yàlla ak juróom ñaar fukki at mel na ne it ku goreel junni jaam te bu ëllëgee bis pénc des na ko ramloo ci ñi nga xam ne sawara yooyu na leen bu ñu war faa tàbbi euh, lu ko jox dig daje ba suba ak jàmm ci gën a naafil wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين